ñëw dugg dans le vif du sujet am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw ci roq bi naan mais na wax ci deuxième bi bien évidemment c'est bien évidemment xam nga nit ne dama bokk ci actionnaire majoritaire yi fi jëlee Macky Sall sama coono fekkew ko suma doole fekkew ko suma alal fekkew ko suma nekk ak suma njaboot fekkew ko ba ci ñi nga xam ne dañuy liggéeyandoog man sax te seen yoon nekk ci wax dëgg yàlla dañuy subir man Bougane sama taxawaay ci wàllu politique ma leen ciy jégalu parce que wax dëgg yàlla amuñu lenn loo xam ne man jàpp naa ne waroon naa leen ko teg muy jafe. élection deux vingt quatre yi ñu wees suñu yéene moo doon participer mais Macky ci njubla Macky Sall ci waa ba jiiba Macky ci doxalinu teg coñ rocc ak dugal ku gis na li ci kaw waaye damay wax rek ne man dama bokk ci aji gëm yi te dama jàpp ne suñu borom lu mu def rek moo gën peut-être xëy na élection yooyu suñu ci demoon ñun dem 1 pour cent la ñu wala zéro virgule la ñuy am et biir na ma ne man loolu nekkul suñu tool parce que bir na ma ne Macky Sall lu tax mu taxaw ci réunion ay kilifa jàkkaarloog moom mu ne leen tant que maa ci réew mi jiite ko Bougane du bokk ci élection jëfe ni mu amee woon yéene boobu noonu laa taxawee man Bougane ne Macky Sall lu ko fii ci loolu rek lay kon je dis le départ man Bougane actionnaire majoritaire ma wax kàddu bu am solo ma ne leen ñun gëm sa ku ne xam na ne ñun bu ñuy natt di féetale ñun anti système lañ ñu féetale dëgg la wala du dëgg waaw léegi yéen ñun ñi doon xeex Macky Sall ak ñi mu ànd ñun mën nañoo bon ñi àndoon ak Macky Sall 12 ans ñooñu tey ñoom ñoo baax. nga wax joo xam ne yéen wul ma ñun dañu taxawoon ne bu kenn fëllee ci anti système ñun gëm sa bopp ci man sama kàddu kooku la ñuy jàpp loolu mosu ko ci jóg ah. pour votre information mosu ko jóg ci loolu mais waxtaan ko wax dëgg ci la nit su waxul dëgg wax sax yéen ci seen bopp dégg ngeen ñi doon xataraayu di wax ne anti système lañu nekk ci kaso bi def conférence de presse ne ñoom ak Macky waxtaan nañu dëgg loolu la yegg nañu ba ci ne am na ñetti point de désaccord maanaam ñetti poñ yu ñu d'accord man nag bokk ci Sénégalais yi ñuy yóbbaale am na ñetti poñ yu ñu d'accordul waaye léegi man dama bëggoon am poñ yi ñu d'accord ba tax ñu yu noonu na mu def soo gisee sa xarit sol sa tubéy yu noonu na mu def ba jot yow set c'est important parce que ña leen woo pour ñu négocier ñoom ñu nangu dem négocier ña leen woo may wax Sénégal ñoo laa jàkkaarloo kilifa yi ko dox ci presse bi ñu tudd kilifa yooyu kama ci ne ma j'aimerais te pour éventuellement que tu discutes avec le président Macky Sall. junj doy na borom xel ma ko monsieur le président dites à votre mandat ki la yónni ne ko wóoluwuma man su ma la wóoluwul du ma waxtaan ak et d'ailleurs damay dégg ci biir wax bi gars yi naan proco protocole cap manuel dinaa leen ci gindi protocole cap manuel amul te li may wax procureur moom may dégg na ma wax protocole cap manuel amul protocole teeru bàyyi sóor moo laay xeex ña àndoon ak man di ma jiiñ ne da ngay xeex Macky Sall ruudaloo ak Macky Sall waaw man sama xel warul tee man may xeex système ne man anti système la anti système moomu ruudaloo ak système waaw sama xel warul tee après ñu ne non non non war a choisir ma lank ndaay suba bu ñu waroon defaat la même chose du ma hésiter j'allais reprendre la même décision ba ñu cay wax yaakaar naa ne sàq bi sexoo dara ndax sa bopp gëm sa bopp tolluwaayam du man yéen a ko liggéey Mor Fall taxaw du ma bàyyi ma fen su ma staff ñii ma jàkkaarloo du ñu ma bàyyi ma fen parce que ñi féete woon ci opposition bi au moins quatre-vingt pour cent ñëw nañu gis dégg naa sax am ñuy wax naan woy Bougane daf ñu joxoon kàddoom musuma jox sama kàddu kenn ñi ñëw seet si ma fii ma toog ak ñoom waxtaan ak ñoom fii ci kanamu gor yu baax yii amul kenn ci ñoom ku ma mës jox sama kàddu ku ma waxal dama lay wax ne incha allah danañu organiser ndaje boo xam ne les délégués départementaux danañu ñëw toog bu boobaa ñoom ñu joxe ci seen xalaat waaw léegi ci ñu demee ba ci cëppaandaw ñu ne ñu da ngay tànn ma ne man li ma xam su ma ko waxee. réew mi tos tak daal di tas parce que booba man Macky Sall jógee fi rek laa bëgg kon lépp luy dooleel Macky Sall bëgguma ko def mais man li ma gëmoon man Bougane mooy ñii tey jot ci réew mi bu ñu négocié wul woon toog ci biir kaso bi sénégalais yi fekk leen ci biir kaso bi jox leen réew. c'est ma conviction. te li tax leen ba ànduma ñoom mooy li ñu dem ba ruutaloo ak ki nga xam ne man jàpp naa ne bu doon canceru réew am na moom la mooy Macky Sall moo doon cancer après léegi on m'a dit oui. nga dégg sax su ma yenn grand journaliste nga xam ne train bi dafay ñu bàyyi ñoom it. ñu naan oui. Ah. il a raté le train de l'histoire. mais train bi départ wu. train boobu ñi doon dox ko jiitu. train bi ma nga fa mu nekkoon ba tey. donc yàlla bu dogalee li mu dogal day su koy nam yàlla def na dañ doon xeex pour Macky Sall jóge fi yàlla na suñu ñu bokk ak ñun génération mais nag man dama mus a gëm ni